bàyyi xel SBT am na ñu mbégte ñëw fii nga xam si ni moom moo di Kër mbay Fall tey seen émission seeti mbër Euh, Kër Mbaye Fall nag boo ko waxee sa xel dem ci ay champion yu bëri ndax bëri na ay ndaanaan ay xale yoo xam si nii ñu ci làmb te làmb xam ne leen macha allah tey nañu tànn ci champion yi kenn mooy ki ngeen jàkkaarloo nii euh, la fi def ak ñen ñoo ay adversaire am ak ak ñi nga xam si nii maanaam fi la maanaam làmb ak yu ma ñëw Kër Mbaye Fall te nuyu ma kenn koo xam si nii euh, kenn la ci SBT muy Yaxya di ko nuyu bu baax la di jàpp jàppale ñi nga xam si ne moom mooy xale yi nga xam ñoo fi ñoo fi ñoo fi ñoo fi maanaam ñoo dëkkee Kër Mbaye Fall te yëngu ci sport euh, muy ñëpp ah macha allah kon tey sama émission tay bi yax yàllaa ko may euh, mbër ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay jàmbaar ji Massamba waaw gannaaw bañ la nuyoo di la siyaar di la jox sa wàccuwaay xam nga di am mbégte kontaan ci li nga def nii waaw di siyaar nag xam nga waa Kër Mbaye Fall ku luxum waaw mais balaa loolu noonu balaa maa jàll xam nga dama naan auzu billah bismillah inna wali yàlla di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall lamb baabul muridiina gàcce ngaalaama Cheikh Babacar Mbacke mu kaboro jaraw lakkati Cheikh Ahmadou Mbacke mu kaboro sama wasilat sama yaakaar day ëllëg waaw gannaaw ma siyaaree xam nga di nuyu waa Kër Mbaye Fall gi yëpp ku luxum waaw di siyaar sama grand frère yi xam nga xam te ne boobu léegi man ak ñoom la barki Seexul Xadim waaw waa mbaar mi benn xam nga ñoom Souley ñoom Baba ñoom Mor yaa ngi dégg xam nga ay ñoom Omar Ngom ñoom variage borom ginaar yi di jóge foofu di bu bëggee sama doomu ndey sama seex góor di seex Baye Moussa bi daan dëgg Gum Saar sama doomu ndey sama lonko laay birisuli maa ngi koy bëggee bu baax ay xam nga bura sama rakk nuur mais di bëggee kenn si man nag muy yaxyaa waaw kooku moom dama koy beral loxo moo koy beral nuyoo sama sama dundal la sama lépp la barki Seexul Xadim bëggee xam nga ñoom papa papa Ndiaye ñoom Bokar Ndiaye xam nga ay Babacar APR di siyaar daal di siyaar sama sama mbokku séeréer yi waa Ñoojoor man doomu Ñoojoor laa dara du Ñoojoor mooy daw sama yaram dama di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér a wér lu ma am ci làmb ñoom ñoo ma ko defal waa Ñoojoor rawatina sama grand frère yi nekk Espagne yaa ngi dégg ku si mel ni ñoom Gris Bordeaux ñoom sama papa papa Dia yaa ngi dégg ñoom Mam Faye ñoom Mam Faye ñoom Colombo ñoom Birik xam nga gars yi noonu ñoom Edouard amaana bu ma limee damay jub ñoom Lamine Senghor yaa ngi dégg su ma limee sa amaana damay jum barki Serigne Sall yéen lu ma am ci la barki leeru alxuraan ñoo may dooleel di ma defal lépp waa groupe sport Euh, dégg ngeen nuyoo bu jot bu am solo boobu macha allah nga xam ne moom la def mais ma leen di wax ne ngeen abonné euh, ci SBT ngeen bës seen touche cloche notification wala ngeen dem suñu page Facebook SBT Media point com man ngeen ànd ñun Insta maanaam suñu Instagram SBT Media point com wala ngeen dem Twitter Insta maanaam SBT Media point com wala ngeen dem suñu site internet www.sbtmedia.com wala SBT ngeen mën ko télécharger ngeen télécharger ko App Store incha <clears throat> doomu kër Mbaye Fall nekk champion ba pare làmb làmb xam ko pare di ko bàyyi xel muy mbëru amateur yi léegi ci lu gàtt tey boo doon wax la moo la boole ak làmb man mun naa ne làmb nattu la ci man comme na ma ko waxee woon bële paase rek nattu bi ma yàlla teg la mais bu ma toppoon ni sama morom yi doon ndax ñun loolu lañu xam waxoon naa ko bàyyi jili ñun mbaal am xaalis dem Maroc dem Espagne la ñu xam mais nattu bi ma yàlla teg la xaw ma sax nu mu demee noonu woon na Serigne Saliou nattu la daal ci man lu leer laa lay wax nii maanaam bërëb bi maanaam comme ñuy wax naan sama papa mbër la woon sama maam mbër ak yooyu moom kii nga non man moom fa ma dëkk fa la làmb dëkk muy ñoojoor ku dégg maanaam ñoojoor xam ne ñun ñoo moom làmb hmm. ku dégg ñoojoor xam ne ñun ñoo moom làmb man samay maam ñëpp ay mbër la ñu woon barki leeru alxuraan duuru bakasaar bi ngay dégg maam la ci man doomu ñoojoor la barki leeru alxuraan làmb la ñu xam am nga fi ñoom seeti Tidiane dëkk ñoom Alou Cité sama grand frère yooyu maa leen nuyu ñoom yanku yaa ngi dégg ñoom yanku ñoom ñoom ñoom ñum na laa ko mën a waxatee sax ya waaw ba nga yem foofu rek xam nga mooy loolu amaana bu ma limee damay juum quoi noonu njëkk a maanaam li nga xam ne moom mooy mbapat ak kañ nga yëg ne si dutu mbër mi ngi ci hmm, moom mënu ma koo fàttaliku ko damaa teel a bëri mbapat damaa juddu rek bëri xam nga mosoo dugg mosoo dégg loolu damaa juddu rek ñu taxal ma ngeen ci hôpital bi lañ ma ngeen ma lu garaaw laa lay wax nii. ci biir hôpital bi lañ takkalee ngemb. lu garaaw laa lay ngemb bañ may tudd laa laa bëre mbapat <laughs> barki leeru alxuraan. da ngaa ci hôpital bi ñu takk la ngemb bi ñu lay tuddal nga. jour jour tudd bi laa bëre waaw sama jour tudd laa bëre mbapat. dama ko prise sama adversaire dama ko prise jël bu rëy laa daan billaay wallaay mosoo gis liir bu lekk laax man sama judd damaa maanaam sama tudd damaa lekk laax ba doyal. lekk si ndawal li ba doyal. ah dañ ko bëttaloon. non demeewul noonu sax dañ ma aaloon ay bëñ man doomu ñoojoor laa ah déggoo li ma la lépp fii lay xewee barki sëriñ Sadio lépp ñoojoor lay xewee ak Kër Mbaye Fall lépp ñoojoor ak Kër Mbaye Fall la mais leneen lu ci tegu mooy bàyyi yaram bàyyi nu mu tuddati sax maas ma sàmba maas loo ci mën a dégg mooy maas na mu mën a bëre barki sëriñ Sadio saabu du fóot boppam de te kuy sa kuy tagg sa bopp doo jub mais maas ma sàmba dama mën a bëre te ci kàttanu yàlla bu ñu ci biir làmb ji dinañ xam li may wax. léegi ñoo xam si làmb xam na leen nga laara ñoom mbapat ñu daan la wala nga daan la ku ci ku ci mel ni kenn laa ci mën a xamante ne mooy Liss Ndiago mais nag du ma ci sori quoi man moom bëri nañ mbapat fa ma ko daan fa ma ko fa ma ko daanoon ba nii nii nii nii laa brisé li xam ne li may wax boo demee da nga fay fekk ndox bu bari daa taa ngën di pax la def oto du fa jaar dara du fa jaar. jël moo ko daana rey. naan Liss Ndiago laa xale jàmm gëm wax de. waaw laa lay wax lay wax ni barki Serigne Saliou li may wax ragalu ma ko. Liss Ndiago adversaire du Caatu Rebeuss. du mag ñoom sax amaana xam nga li ma laaj sax moo tax ma tudd leen nii mais ñooñ du maag du maag ñoom ñoom taxuñu may bëre ñu ma dugg ci làmb li tax ma dugg ci làmb mooy li Modou Lo yor mooy couronne bi barki Serigne Saliou looloo tax may bëre te gars yi xam nañ li may wax bu baax. kon su ma la déggee daal si mbapat maanaam benn mbër boo xam si làmb xam na ko Liss Ndiago la ma moom nga si daan bu ma juumul bu ma juumul moo koo xam te ne instant muy toj waaw yaakaar naa ñu ngi ko si tudd moom moomu la waaw boo ñu doon ñëwalaat sa diggante ak Liss Ndiago combat bi maam lam non non si non xëy ma internet ñoo bëgg a xam loolu SBT la wax naa ne fii la lépp leeree seen émission seeti mbër ki nu ki nu dalal ko muy Ibo ah li mu wax nag nee dafa mën a bëri xam naa nag ci biir émission bi gars yi yéen man ngeen a commentaire ndax bu fekkee ne xam ngeen si moom ak ndaanaan wala ak waane ak mën a bëri après loolu dafaa bëgg mu leer mais xam naa man moom fi mu doon nii mayegun naa la euh, deux deux points waaw deux points si li nga waxagul nii xam naa ni nga waxee ni man convaincre ko nga ma tuut tuut nii léegi sa diggante ak Liss Ndiago tey boo ci doon ak combat bi la moo taxoon combat bi taxaw la moo taxoon nga jël ko damay ñëw ci waana gi ba pare waana gi moom <laughs> yàllaa ma ko teg parce <laughs> waane comme dama la ku judd rek bëre kooku kooku kooku waane loolu amagul ci làmb loolu yaa ngi koy soog a dégg tey waaw waaw man ak Liss moom xam affaire yi moom xam dafa nekkoon jeune ma nekk su ma juumul Mbaye saar moo tëggoon làmb jooju Mbaye Sarr doomu jàmm gën na maa ngi koy nuyu di ko jox wàcc waaye mu baax moo tëggoon làmb jooju noonu ma nag lii si yaakaar naa pénitence ñu bëree c'est de pénitence làmb ju bëri woon coow nag wallaahi signature bi nag dama ko dama ko jaay rek teg ko lu métti jëmu ji du ma bàyyi ma fen yére bu mu soloon ci signature bi dama koo simmi nangu ko blouson mbër la sol ma si jaa nga simmi ko nangu simmi ko nangu ko jox ko jëmu ji mu téye ko wax ju amul seede baaxul ki leeru alxuraan wax ju amul seede baaxul yére mu soloon signature bi dama ko simmi nangu ko jox ko jëmm ji gaa yi di saraxo ba ma delluwaat ko yëre bi barki Serigne Saliou mais la ma ko fa wax du ko fàtte ba ilal abat laa ngi nii Bruce Lee ba keroog muy sàngoo suuf la ko wax si signature ba wax a loolu teggi newul da dafa teggi newul xam nga ma di ko wax ci affaire yi nii xam nga loo xam ne day law mooy loolu àdduna yëpp a koy seetaan noonu la demee nag biir combat mais moom du njaa du géwél njaago la santul sekk santul mbaay Seck ay ñoom Mendy lay sant xam nga ay ñoom Koli affaire yooyu noonu mais santul sekk santul mbaay ah du géwal de du géwal njaago la de mais bokk na ci xale yi dàq fecc ci gën a digg garañ ci làmb ji. wallaahi bu ma feccee rek ngeen dar ngeen dar seen gémmiñ <laughs> maa dàq fecc ci làmb ji. <laughs> billaahi lu garaaw laa lay wax di <laughs> ndeysaan yaa ngi yaa ngi daw sama yaram instant bii nii lu garaaw. combat laa bëgg nga ñëw si combat bi yéen ñaar. maanaam làmb ju maanaam ju bëri coow la. digg géew bi rek lu ne lu ne am na ci xëppante saw fii lu ne lu ne am na ci digg géew bi barki leeru alxuraan may won ko ne maanaam yaaram war nga lu garaaw jàmbaar bàyyi sëñ Massamba barki sëriñ Saaliw won ko ne maa la dàq bëre maa la ëpp fit maa la ëpp doole lépp loo xalaat ci làmb maa la ko ëppale doom war na jëlu laa ko daan jëlu moo ko daan ba fat dama koy waxaat daanaka ma ko mbër entraînement arbitre sifflé noo def sa dox ci kawam ndax man duma bàyyi mbër di dox sama kaw dama dox ci kawam won ko li ma ko mënee won ko li ma ko ëppalee jaay ko ko daan ko jël wu rëy. daanee bëgg xam. dama ko dama ko jàllale. kër yaay Dial Mbaye laa ko yóbbu sëriñ Serigne Saliou Dial Mbaye dama ko xëcc bu mu ñëw ma jàllale ko mu jàll kër yaay Dial Mbaye. dinaa ko daanaka coono yu bëri. man moom dañoo bëri ba pare ñoo doon bëri premier combat dañoo bëri ba pare làmb ji yàqu wala làmb ji yàqu deuxième combat amul troisième amul quatrième amul amul. bala laa am yaa ko mën a wax léegi ñaata at la. waaw léegi bu ma lañ ah. bëri waaw c'est vrai 5 ans 2015 2025 la. xool naa ci bi am na ñëw na fii nga jaay ñu tëgg revanche bi jàmm gën nga ruux. fa tëgg sama combat man moom jàmm gën ay tournoi laa fa dem ñii su ma juumul dañu ma bàyyi ma fenn làmb joo xam te ne jour komba Sathiès ak Jordan. dem nañ fa ay tournoi 10 heures ba 5 ci ngoon ñuy bëre làmb ji mënul jeex daan naa fa benn mbër trois fois jàmm gën. gars yi dugalaat ko. kii su ma juumul terrain daaru bu jàmm gën fa lañ doon bëree da ngay gis mbër bu ñu daan mu binduwaat mbër bu ñu daan mu binduwaat bëggu mooy may bëggu mooy sama émission sax ci ñooñ ndax ñooñ taxuñu ma dugg ci làmb waaw ñooñ taxuñu ma dugg ci làmb quoi waaw ñu tax ma dugg ci làmb mooy xam nga couronne bi. te waa ñooñoo dañ ko namu ci man waa Kër Mbaye Fall namu ko ci man te yaakaar ko ci man nag wóor na yàlla. waxaat ko beneen yoon ah wax naa sama émission tay bi ah Yaxya laa ko may ah champion ah, de Kër Mbaye Fall mais ma leen di wax ne ba léegi SBT Média la seen émission seeti mbër ñu ngi fii ñu seet si ki nga xam ne moom mooy Ibo léegi ñu ñëw si li nga xam si ni ñu génn ñu génn maanaam combat Mbappé di ñëw si mbàccum gerte mi sa premier combat arène. sama kër sama premier combat 2019 2020 sama deuxième combat ma bëre ko le 4 janvier 2020. combat bi laa bëgg taxaw sa diggante kan. sama maag Ndour Afio la woon après booy dinañ la dinañ la tegal combat yi. xamal nga xaw ma ko woon jour chantier bi laa ko gis waaw. combat boo jooju mën naa ne arbitre yi sax gisuñu jël bi arbitre bi daal ci ba nar koo jox victoire. billaahi wallaahi. daa ba jox ko victoire jël bu rëy laa ko daan man moom dañoo daw jàppante ñu jool la